bayaan yii la leen El Hadj di tere am di yow ñaata yoon lan la avertir ne la bàyyil sàmm bayaan gi tey dañu am ay gan merci li ma dal neexuma tey ah, ah, am di ñëwal ngay mel ni ki jógee Cameroun kaay nii waaw waaw di nuyu ñëpp ñu fi toog nag ndax euh, génération bi toog ah. am di lii mu sol du tay baas lii di marinière am di mais nag mais nag xam nga xam dégg dafa am solo déglu ak dégg danoo bokk te wuute te olof Njaay nee na booy fréquenté ay mag sa jëm mën naa yor jëm yu gone waaye boo waxee ci mbooloo nañ kii fan kam moo ko yar waaye nag kii waral bés bi tey di sunu bàyyi Omar Pène di sunu bàyyi Omar Pène di ko ñaanal yàlla sàmm ko mm-hmm. sàmmal ko kanam sàmmoon ko ginnaawam daf ma woo téléphone sànq ni ma dukkure ma ne ko waaw pen xam nga man loolu la ñuy waxante maamu dañ koo séq ma ne ko pen mu ni ma dukk yaa ngi ñëw wala ñëwoo ma ne ko dama am problème mu paas ndax xam nga man ku ne xam na ni faqiir laa awma ma waaw faqiir nit na nangu la yàlla teg je ne man may ambassadeur des pauvres maa gën a ñàkk ci àddina nangu naa loolu mu ne ma dukkure ñëwal ci kàttun yàlla ak mbaaxam buy ñibbi di nga fay say bor ma ne ko ci naan bërët lañ def mu envoyé mille cinq cent ma ne ko pen est-ce que dinaa mën a ñëw fi ma dëkkee sori na ma laal car rapide ñëw ah looy bëgg wax wax ko foofu tonton Oumar Pène moo la yónnee ñetti téeméer ñetti téeméer mille cinq cent en français bari na parce que bi aussi soirée invitation la. wax nga dëgg amul kii waaw waaw ah. jar na ko pen jar na ko pen jar na ko yox la jëli ko amul taxaw. jërëjëf yox la waaw am di. boo amee ay kàddu yoo ci sànni ndax it nag wax dëgg ne xala bis bi. tout d' abord nous remercions euh, man mii maa so. yéen li ngeen di wax yëpp Pape Sidi wax na ko. te doo leen professionnel ci gërëmaate. liñ fi indi. xam nga mooy lan. ñi reetaan ñii ta dem. ñu loolu ñu fi indi léegi nag bu ñu fi nekkee nekk war a toog fii di wax ay lii eh, eh, kii loolu baaxul de. dëgg la nit ñi ñu jëpp xam nga man soirée sénégalaise lu si lu ma si naqari. Uh-huh. tey ji bu Amar Pène yéegoon nga gis gaa yi jóg di battre waaye ñun comédien yi bu ñu taxawee dee leen reetaan loo ne bu ñu paree ñaan jigéen ñii <laughs> bilaay ñoo am xoro rek romb leen sans yooyu rafetul léegi bu ngeen bëggee dee leen ñu fexeel ñu bëgg. loolu euh, fair play la rek ñun demande wuñu kenn mais leen fexe ngeen bëgg bon wayaanu ma wayaanu ma déglu ma damay wax bon maître bi dafa xool élève ba mu yàgg daal ko ne dessinez moi un train passe par vite dessinez ma train bu gaaw mu dessin raay yi rek bàyyi maître bi ne ko pare nga mu rek mu fëgg ko mbéj na ko ana train bi ne ko yaane mu gaaw mu naa ah, ma ko romb na ba pare kan kii benn benn benn paa la woon bu yor muus mu lakkale muus mi da koo lakkala lakkal sonal ko sonal ko lu mu teg muus bi jël yóbbu paa bi jël muus mi nee day sànni muus mi sànni te muus bi maîtriser na kër gi maîtriser goo xam ni ci salle de bi sax lay sangoo pour wan leen ni muus mi maîtriser na kër gi paa bi takk muus mi yóbbu ko ba jëm ñaajo balaa ma wàññeeku ñëw fekk muus bi di nelaw mu xëccaat muus mi yóbbu dem ak muus ba puut wàññeeku dugaat ci kër gi fekk muus mi di di di naan ñeex mu ne yaa problème mu siif muus mi takk bët bëtu muus yi yóbbu ko ba alum kaañ espace boo xam ne kenn newu fa espace bu vide fi mu tegee muus mi génn di dem moom ci boppam moom mu réer moom moom paa réer jékki-jékki woo soxna si ne ko madame. Euh, doo dimbali rek nga wax ma ku ma ku ma mën a gideel munu ko munu ko mus mi ñëw na bu yàgg waxal mus mi mu ñëw gide ma mu gunge ma fu ma jëm ndax xam naa ne mus mu na maa indi comprendre dafa tra dafa euh, paa bi dafa woo doom ji ba ci diggu àll boobu ñokkal ko baa nekkagul parc. nga ni. fi gaynde yi ne. waaw. paa bi ni ko moo fis tu as 35 nan nga mën a def ba génn ci mbedd mi say morom di la dóor dama bëgg nga am fit s'il y a quelqu'un qui peut traduire pour ce, pour les étrangers et ceux qui ne maîtrisent pas très bien la le wolof vous pouvez le faire euh, pouvez euh, traduire mes blagues en français en anglais hein eh voilà attends paa bi ni doom ji dama bëgg nga am fit ndax fii nga taxaw nii lépp ay gaynde ko waroon waaye man mi sa baay gaynde gu ci ne dama ko yeew tënk ko wax ak moom jëflante ak ñoom dóor leen ba seen kilifa ñoom gaynde yi ñëw saraxuma li muy expliqué doom ji mi ngi koy joxe naan ka papa xoolal sa ginnaaw paa bi dégluwul liñ koy wax paa bi naan ka xoolal sa ginnaaw bi paa bi di geestu ndekete gaynde gi taxaw ci ginnaaw paa bi ci lay doogay gis luy gaynde tourné naan ko mon fils lii lan la booy bi daw na ba yëg kër ga naan ko yaay sama papa gaynde ga mais paa bi génn ci douche bi sa satalaam ni nga kañ nga ñëw. mais mais sëy siffle siffle père Bécaye dama leen nettali benn anecdote lii nag moom histoire réelle la déglu leen ma bu baax xam ngeen Moussa Sy bu parcelle bu muy doo ko dugg si politique Moussa bu parcelle bi muy doo ko dugg ci politique ndeysaan jamono di dox Moussa Sy di xeex di politique ba am ndam ñu def ko maire. ñu def ko maire. waaye moment boobu Moussa si R4 la yoroon jóge si R4 ñëw si r cinq bu ko defee maire Moussa si ñu jox ko 4-4. est-ce que. bañ ko joxee 4-4 moom fi mu dëkk en face école la. léegi nag donc kat kat bu bees pukk xam nga kat kat maire yi mooy bi muy doog a xew rek bees pull xale bi romb ko ne quatre fois quatre for xeer xoos oto bi ne égal seize. daal di taxaw. daal di taxaw Moussa si génn xam nga dafa mi yop mi mi mi mi mi mi mi <coughs> nu vraiment ne comme fair play la woote garaawul dem voilé waat oto bi wàcc ñëwaat booy bi ne paa bi daal daal vraiment paa bi day de ko ne 4 fois 4 forar xeer ne égal 16 bindaat mu sonn dafa égal 16 bu rafet en fer taf ko ci 4 4 bi booy bi di xëy gis ne égal 16 bi réussir na booy bi foraat xeer bi ne ko ci très bien <laughs> kii benn rëbbkat la rëbbkat bi toog na lu mat ñetti weer sanguwul ñetti weer la toog sanguwul dugg ci biir àll bi jël fi tam dugg di rëbb di rëbb di rëbb ba si yàgg ni bër xëñ ñett jàkkaarloog gaynde moo gaynde gi wan ginnaaw gaynde gi ni bër xëñ ñett gaynde gi di ko dàq ji di ko dàq ji ba mu faqasalu daanu gaynde gi daal di ŋànk yeelu waa ji nga xam ni toog na lu mat six mois six mois la waxoon non six mois la woon six mois ah ŋànk ko daal yàbbil ŋànk ko daal di yëbbi bi mu yàbbee gaynde gi ni bërxa ñett dugg ci biir ci dëkk bi dugg ci biir marché bi ngay naan ay waay tey ñu diyee ay waay gaynde gi dinañu lekk ay waay gaynde gi ni leen taxaw leen bu kenn daw ana ki yaa Dakar mais bégg ni mun ko may ma tuuti Dakar sama xel may teey <laughs> ñëwal Doucouré ne woon naa la ne woon naa la boo fi tojee seen bi tamit dañuy ñëw naan c'est bien tàccu la rek dem ñun xam naa ni da ngay wayaan bii la ñuy def rek ñu baleen ñoom ñu may leen benn rek après ñun ñu dem toog am fulla ji day tamit ñu koos suñu suñu Omar pen comme ñëpp ah, am di déglu rek déglu rek waaw am di ma lay fàttali ni la ñii maanaam ñooy maanaam Sénégal c'est la crème de crèmes ñoo fi toog ñoom duñu ree comme ay géeje Géejawaay waa Pikine nekk fi ñu <laughs> non ñoom seen ree leen la mooy <laughs> pare nañ si réew intellectuel la. waaye tey dinañ tey dinañ ree par force ndax bii laay joxe dem bii laay joxe man pare ci man bii laay joxe dem man samay affaire boo bu la neexee nga ree bu la neexee doo góor jigéen bii dafa tuub ne bàyyi na yëfu góor jigéen yëpp commencé julli di wor di sellal imam bi di koy xool ba mu yàgg daal ko ne gëm naa ne tuub nga waaye tey damaa bëgg julli gi yaay li xam émotion boobu ko jàpp ji koy góor jigéen bi di kalaat ko mu ne julli gi da ko tol feem ñu ne ko li xam mu tax rek mu ah, <laughs> ah kon ah ah waa kon bàyyi naa man. am na jërëjëf jërëjëf jërëjëf yàlla jàmm yàgg bàyyi naa yéen a mën ma ñii. mais mais ma nii yéen a mën ma ñii. mais ma nii. yéen a mën ma yee. jërëjëf ma nii. merci beaucoup waaw waaw Père ah, Bécaye may nañu nag ah. Père Bécaye eh, da leen di may. Eh, eh, laay laay la. Père Lumunar Batare. Batare. Père Lumunar. Batare. Père Lumunar. Batare. Père Lumunar. ku bëgg a baatere mën nga ñëw mën nga cee bokkaale. waaw waaw. Aliou maa ngi ko nar gis kenn wurag sa kenn gis kenn. père maa yëppale kenn wurag sa <laughs> Boy Town maa yëppale affaire la jox la voilà. kala ah, ah, lu ma gëj a téye yàlla yàgg. fi juróomi téeméer. non jël leen maa ngi ñëw ci kanam ñu séddoo. mais waa jël. jël 3000. waaw am nga fii 2000. maa ngi ñëw ñu ñu maa ngi ñëw ñu géré. maa ngi ñëw fële ci El Hadj Ndiaye foofu la ñuy séddoo <laughs> su amee ku leen bëgg a may ne vous gênez pas on peut <laughs>